di doo a tàmbalee sàkku li maam dama nekkoon ci turu suñu borom yi jéem wuti yàlla bi rek borom ne ma ko bas tegtal ma yonente bi ne ma demal ci Muhammad li ma bëgg ci moom la ne ndax yoon nekk dafa bunt bi jaar ci suñu borom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo mu bind ne dal leen yàllaahu ala Muhammad daal ne yonent moo ko wommataat tegaat ko ci loxo suñu borom day waxaadali Muhammad bi sama loolu tax na mën nañ ne sëriñ bi bisam yépp gàmm lool waaye nag li wolof naan tàgge bu nekk am na jamono bis boo mën di xam ni itam am na bis spécial gàmm gi mooy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam guddi gii mu ganee àddina sëriñ Tuubaa nee na keroog la ko jox la ko fasante mooy kóllëre mais góor la zi tamit yéen fii nii rek daf yéen kon fii première fois bi mu fi njëkkee gàmm ci njaareem 1912 autorisation bi Yéeli Manel Fall moo ko facilité ba tax tubaab bi may ko mais ci autorisation bi dañ ko ne 43 personnes képp lañ la may ñu mën a fekkee gàmmu ñu seetaan nga xam ne taalibe yi dañu ne ak dee dinañ ko fekkee tubaab bi daan ne du ngeen ko fekkee xam ne dañoo fanaanee dàqante ak ñoom ba bët set sëriñ bi digle ci njàng njàngum alxuraan njàngum xasida tudd tur yàlla julli ci yonent bi sallallahu ak benn ni ñu ko faral di defee ci biir àddina di dox àddina di dox ba buñ seetloo sax ba ci njabootam gi fi toogoon toogaayam ki fi mujj ci doom yi boppam di Serigne Saliou Mbaye saa bu daan soññee màggalu Touba da ciy doom soññee gàmmu gi différence bi nag ak màggal gi mooy am na léeg-léeg ñoo xamante ne dañ naan murid di màggal gi lañ gën a fonk wala yu ni mel waaye du lool màggal dañoo am ndigalu ñun ñëpp ñu dem defe ji ko Tuubaa te gàmmu dañoo am ndigalu kenn ku ci nekk foo ne mën nga ko faa defe waaye fi teg bisub sëriñ bi lan teg bisub waayam ji waaw kon nag euh, ñu ngi ciy soññ ñëpp di ci woo mbokk taalibe yëpp di leen ci digal nan gën a góorgóorlu ci buñ ci àggee ci sellal jëf yi ak doxin ak waxin lu ci waay mën ci alxuraan la def ko lu ci waay mën ci durus xasida nga def ko salaatu ala nabi tudd turu yàlla ak teral sa moroom doomu aadama ci wàllu bernde rek la ñu ngi ciy soññ ñëpp di ko digal ñëpp bu baax a